Sénégal daanaka sax wax ju bon dafa mel ni kat ma ngi fiy ñaay ñaaya naam sax ay kàddu lu nga xam ne léeg sax day daal di gën a ñagas sax wala sax mu nekk xam lay gaañ waaye ñu mel ni kat day laal sax ci xel mi dafa mel ni daal loolee sax daal di euh, dugg ba ci pouvoir bi laal ku jéggi dafa mel ni sax fonctionnement démocratie ak institution yi ci république ak ñi nga xam mooy bërëb bi jàngalekaay yi léeg lépp daal dafa mel lu nërmeelu ba tax na loolee daal nekk na góom bu nga xam ne daal ñu faj ko rek tënuñu kon dafa mel ni ci wàllum vie politique ak société civile bi kenn rëccu ci def nañu tamit deret bu tuuru moom dafa daal di ëpp ak ña nga xam ne ñooy faatu ci waax yi ak ña nga xam ne ñooy faatu tamit accident yi rawatina ci espace public dafa mel ni kat lëkkaloo bi dox ci diggante li nga xam ne daal mooy nit ak nit loolee dafa mel ni dafa gën a bon wàllum en soxorante ñàkk a baalante ak ñi nga xam ne daal jëfi yokku njur la lépp daal dafa mel ni jëfi golo kon dafa mel ni kat mbir mi daal bañante lay gën a nuru kon tey jii ñu bari daal ñi ngi teg seen i gët ci li nga xam ne daal moo fees dell ci nga xam mooy kaso yi xiifal nag moom di grève de la faim bi nga xam ne Ousmane Sonko tàmbali na ko dafa mel ni kat loolee ma ngay woy di wule ñaay day nasaxal sax démocratie waaye tamit gis nañ ne daal li nga xam kat mooy nit ci boppam loolee kat war nañ ko cee mën a dimbali kon ñu gis ne xaar dale nar a xaar rek nit ko faatu ñu daal di fexe rek ba daal di ko dimbali loolee daal dafa mel ni dafa xew ci pays de la Teranga bii wàllum jàmm wàllum respect bi nga xam mooy am ca keneen lépp daal dafa mel ni dañ koo jël ci bisànne na le kon daal ñàkku teggin gu nga xamee kenn xamul fan lay tege ak ñàkkum baalante gu nga xamee daal askan wi sax ñoom seen bopp ñoom ñoo leen safatul dara dafa mel ni kat dañoo delluwaat ci yaa jamono yi nga xam ne wàllum njaayum jaam la ki nga xam ne mooy Abdou ay si Dabakh nekkoon fi xalifa général di Tijaana moom nag amoon na période bu nga xam ne daal saa bu yëkkatee kàddu rek ñëpp dal kon moom daan na rek fexe ba daal di fiixal xol yi waaye tamit waxtaan ak nit ñi ci waxtaan dëgg kon dafa mel ni discours bi nga xam ne moo doon discours bu dëgg loolee ci boppam moo nu manqué kon moom bi nga xam ne kat euh, mooy moo Abdou Aziz Dabakh bi jamonoom dafa mel ni kat soxloon ko waat lool kon nag nga xam ne mooy nitu jàmm nit mi nga xam ne daal saa bu yëkkatee àddoom rek ñëpp ne askay kon nag fexe ba génn ci guut ak nga xam ne kat ne lu dugg kon dafa mel ni kat la nga xam ne kat euh, moom moo nekkoon ndono ci Dabakh loolee war na wasaaroo fii ci Sénégal kon dafa mel ni kat wàllum jàmm moom lañ gën a soxla ci euh, li nga xam ne daal moo xaw fii ci Sénégal ndax gis ne kat moom lu ëpp